Sonko ngoo ko kenn mënul rax Sonko ci loolu waaw kii ku ko bàyyi sax muy nekk chef de village kuy xalaama yo réew mi ëllëg ku dof ba dina ko jox su réew mi un rebelle koo xam ne bëggoo Sénégal tirailleur sénégalais yi nanguwul sax ñu ñu bàyyi loolu nga xam ne Sénégal moo doon incarné l'Afrique c'est de l'histoire la capitale de l'AOF Dakar tirailleurs yëpp bu ñëwee fii ñu ne ñëpp sénégalais lañ mu ne non la place du tirailleur africain traite africain amul ci histoire du monde histoire sénégalais moo am parce que Sonko est nul ba pare dafa bañ Sénégal sénégalais yi yeewu leen stade bi bëggu ko coupe d'Afrique bi ñu gagné bëggu ko daf ñoo bañ rebelle bu bon la rebelle sax yu baax yi ñu ngi bëgg a jubóo xam ni Sénégal ñoo ko bokk Sonko kenn mënu ko teree dee rebelle ju suul ko rebelle mu yeewu alaxire rebelle yàlla xam ne nu muy defee ak moom. ndax 14 moor yëpp moom la moo ne mortal combat dem leen dee na leen jaral seen bakkan waaw moom kan la yow nit nga ko bee nit ñi nit ñi ñàkk fay la dem di dee pour yow yow yaay kan daa ko fee jàng kenn da gënoo sell kenn gënoo fee bëgg Sénégal kenn ëppoo xam-xam kenn gënoo bëgg réew mi kenn am ay dof yoo xam ne xale yi yeewu leen dof bi bu mu leen yóbbu ci loo xam ne du noonu seen bàyyi ak seen ndey dañ leen a yaakaar Sonko juru leen joxu leen biberon joxu leen añ jàngalu di leen nax ngeen doo leen ay xar ak ay béy ah, daf leen ay xar ak ay béy di leen utiliser pour ngeen taal Sénégal ndax moom Sénégal taal ko ko jóg rebelle bu ñëw Sénégal la pour délocaliser le conflit Casamance indi ko Dakar yóbbu ko Ndar yóbbu ko Kaolack toj dëkk yooyu di ree na ne ha ha total la Sénégal ki vrai vrai terroriste criminel bu bon noonu alors encore Sonko di saaga magistrat yi di leen wan yéen du ngeen dara dañ leen a jënd ñuy wax mu attaqué le haut commandant de la gendarmerie le général Moussa lu yoonam et puis cest à amul lu yónni gendarme ci ku jóg génn këram guddi làqatu ay garde corps am làqatu chauffeur nëbbu ay jabaram sol capuchon nëbbu kanamam dem ci benn lieu boo xam ne ci couvre-feu bi heure boobu ñëpp war nañoo wàcc ñu forcé ay jigéen ñi di ko nekk pour raay mbellee une séance de raay mbellee raay sama raay Ce qui est plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus marrant, il dit, man sama ndigg lay métti sama ginnaaw gi da daan ba nga xam ne mën a mën a tëdd couvre-feu bi li muy métti métti ñu aaye ñu génn man mënatu ma tëdd bu ma dalee depuis ba nekk xale du ma mën dara damay jox faju ji waaw docteur Adji Sarr fan lañ ban université ban faculté de médecine ban ba fu mu jàngee kinésithérapie waa ji waa dëkk ba waa dëkk ba fële ca booru fa mu dëkk jiir naa xaw ma jiir ah? na noonu la foofu la ko jàngalee dafa mel ne faculté de médecine buy buy faj euh, ponkal moo xam ne ginnaaw mooy metti ponkal mu ñàkk fayda sa ginnaaw di metti guddi mënatoo koo muñ docteur Adji Sarr moo lay faj yéen Sénégal yi génn di dee pour kook di wax dof yooyu waaw yeewu yeewu xaw ma yeewu la xaw ma yeewu yeewu leen réveillez qui le suivent aveuglément comme un dieu doivent faire attention le haut de la gendarmerie le général Moussa Fall comment peut le complot il l'accuse ban complot moo am le complot donc on l'a menotté Sonko on l'a sorti manu militari de sa maison pour l'amener au salon Sud-Beauté ou bien c'est lui qui est allé directement au salon Sud-Beauté à l'insu de ses gardes-corps de ses femmes ses épouses et de son chauffeur donc où est le complot dont il nous parle waay waay waay Sénégalais yi yeewu leen yéen nag ku doon nalaw yeewul ku jóg guddi ku wër am ñëpp ngi tëdd kenn du génn kom moom député la am na droit génn mu génn salon de beauté yeeg usines yeeg boutique fépp tëj ñëpp ñibbi nañ moom nag il faut ñu nekk ko ba mu ñëw moom le roi Sonko le prince de la nuit l'homme du couvre-feu le violeur du couvre-feu le violeur du couvre-feu il a violé le couvre-feu pour séance de ray mbelle séance de massage à la Adji Sarr mais Sonko kan la yeb où est le complot yéen Sénégalais yi complot bi ay Macky Sall ay Antoine Diome ak léegi Moussa Fall général même doyen des juges bees yi ku ko ñëwee rek complot parce que respecté wul Sénégalais yi Sonko n'a aucun respect pour les Sénégalais il les prend pour des demeurés daan ay dof lañ rek damay damay toog di élaborer rek il a un laboratoire de mensonge de manipulation xam nga Marine Le Pen ni mu ni mu aayee France ba ba topp ci Macron noonu la aayee ay populistes yoo xam ni di gëmloo nit ñi loo xam ne dara amu ci c'est des gens dangereux Sonko est pire que Hitler Hitler dafa ndax Allemagne yi dox seen kaw Allemagne ba jël Allemagne indi fi deuxième guerre mondiale Marine Le Pen bàyyam Jean Jean Jean Marie Le Pen naxoon fi français yi ba gagné fi Jospin dem second tour ba Chirac ñu mel ñu bonee ne la famille Le Pen dem ba nekk premier parti de France ci ay naxee mbaay loolu lay bañal Sénégal ay bandi daje nax bëgg a nax Sénégal ndax pétrole bi biñ jaayee suufu Sénégal soo ko mën sàcc la yaa gën a jaay suuf sàcc bu bon la suuf si jeex na xel bi yëpp pétrole bi la nekk ak groupe bu mu àndal pour këf réew mi jaay pétrole bi am ci ay milliers de milliards ndax dafa bëgg xaalis nee ne ku tuur cotiser leen cinq cent francs wala cinq mille francs ay dof yu ñàkk fayda di cotiser koo xam ni lambar lambari ci salon de beauté la xam je parlais de dame justice ah là ça devient sérieux tey boo ko laalee tey boo ko s'attaque à dame justice va le payer je demande à la justice de mon pays de prendre ses responsabilités. Nous avons appris à la faculté de droit, et tout le monde le sait, que nul n'est censé ignorer la loi. Un. Deux. Que nul n'est au-dessus de la loi. On vous a dit avant-hier que le juge Ngor Diop, je crois, son procès pour une affectation illégale. Donc on a désavoué son patron, le ministre de la Justice. On a aussi appris à l'époque, ça fait quelques mois, que certaines cours d'appel avaient réhabilité certaines listes de Yéhui qui a été par des préfets. Chaque fois que des juges sénégalais rendent des décisions en faveur de l'opposition, oui, nous avons gagné, nous avons gagné. Mais chaque fois qu'il y a des mesures qui frappent les opposants, oui, il y a complot. en disant que il ne va plus signer au premier cabinet, donc le cabinet d'instruction du doyen des juges de Dakar. Sonko a signé. Son emprisonnement Et je demande à la justice de mon pays de ne pas être faible. Sonko n'est pas au-dessus de la loi. Qu'est-ce que dit la loi Qu'une personne inculpée bénéficiant d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire si cette personne viole l'obligation de signer, donc viole le contrôle judiciaire, elle voit ce contrôle judiciaire révoqué. Et si le juge révoque le contrôle judiciaire, la suite, c'est le mandat de dépôt. C'est la loi. On vous donne une faveur. Le fils de Cheikh Yérim Seck, il est actuellement en prison pour une accusation de viol. Comme vous le savez, le viol est criminalisé. En général, tous ceux qui sont accusés de viol sont placés sous mandat de dépôt. Parce que nous sommes en face d'un crime. Mais Sonko, contre toute attente, a bénéficié d'une liberté provisoire, une faveur exceptionnelle. Assortie d'un contrôle judiciaire. il oublie il oublie l'avantage la faveur qu'on lui a accordé alors qu'il devait aller en prison Sonko maintenant défie le juge il le défie il viole l'obligation de signer tous les quinze jours le registre le registre des contrôles judiciaires quand on viole l'obligation de signer. Donc quand on viole le contrôle judiciaire, immédiatement, on est envoyé en prison. C'est la loi. comme vous le savez, l'ignorance transforme l'or en plomb. comme le disait Victor Hugo grand écrivain devant l'éternel grand poète écrivain Victor Hugo l'ignorance transforme l'or en plomb parce que l'homme est ignorant les gens qui le prennent pour un dieu ne peut ignorant vous, je m'adresse aux talibés de Sonko, aux esclaves de Sonko, aux chiens qui aboient de Sonko. Votre roi, votre Dieu, il est nul. Et le président Ousmane Chimel Diouf dit. Il dit que le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Quand le dossier dépasse le procureur, il va chez le juge d'instruction, on ne peut plus parler de classement sans suite. Sauf qu'on de classement sans suite. the non-lieu. Il mélange tout. Le non-lieu, c'est au niveau du juge d'instruction. Mais dans le dossier d'Adji Sarr, on a dépassé le classement sans suite. En parlant de classement sans suite, Sonko étale son ignorance. C'est une coquille vide, Sonko. Il fait trop de bruit. Parce qu'il ne connaît rien. le mensonge et la manipulation. Et rien d'autre. ne connais que ça. Maintenant, j'interpelle la justice du Sénégal. Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire signez-moi tous, je ne signe plus, je m'en fous. de la justice. Il faut que la justice s'applique. Que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable et un précédent dangereux Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonko aurait dû se retrouver à Rebeuss, à la prison de Rebeuss. Depuis que le juge s'est rendu compte qu'il ne signe plus, il aurait envoyer le chercher pour l'envoyer immédiatement en prison. C'est ça, loi qui le dit. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est sous contrôle judiciaire. Il fait ce que le juge lui demande de faire. S'il ne le fait pas, comme il dit, c'est la prison qui le reçoit, l'hôtel 0 étoile de Rebus. Je veux informer les Sénégalais. Parce que l'homme est dangereux et il est entouré d'une équipe de manipulateurs qui occupe les médias pour le présenter comme une victime d'un complot. Quelqu'un qu'on doit abattre, quelqu'un qui n'est rien du tout, qui ne peut pas être chef de village. Même si les maires de, de, de, de Zéguinchor, on connaît. Zéguinchor, c'est particulier, j'aime bien Zéguinchor. Mais il y a toujours des rebelles à Zéguinchor. Non, vous avez vu ça, le jour de la proclamation de la victoire de, de son, de son, son ami rebelle, Il a montré sa force. On a arrêté des militaires sénégalais. On a humilié des gens de l'armée. Même, même Sadio footballeur, a demandé à Salif Sadio, s'il vous plaît, libérez les militaires. Tout le monde l'a demandé, sauf Sonko. Parce que Sonko est pire que Salif Sadio. Peut-être Salif Sadio même, lui, peut avoir des sentiments tout dit, tout dit, de Yermané. Sonko n'a pas de sentiments de Yermané. pas de sentiment envers ces